xuppaate man dama jàpp ne ne tamit om d'état la mais homme politique la politique réponse politique politique ko koy répondre maana dañoo gis ne ne am na ci ñoo xam ne ne tamit ci presse bi tey ñoom ma jàmbal comme xam ne ne lu jàmb ci réew mi moo ko jàmb lu ci réew mi ma jàmbal moo ko jàmb moom lañ gis. su jàmbul nu muy def te tudd ma jàmbal day jàmb ba mu saf kay. ah day jàmb. léegi nag comme day jàmb foog ñu jàmbal ko moom moo tax kon d'accord naa waaw mu déedéet déedéet xam nga moo tax sànq dama wax benn mot in fiiroo ngi dugg a dem saa à dama la bëgg a wax ne ne loo xam ne nag wax nga ko am ñu génn di wax parce que problème mu presse bi yëpp ñaar la man ci li ma ko gisee boobu mooy ma jàmbal moo génn wax ci affaire générale euh, kii nu mu tuddati général kii euh, Kandé en même temps journal euh, ki nu mu tuddati l'observateur L'Obs ak beneen bi Tribune defe naa ne c'est directeur kii bi moom moo posé man ma dégg benn journaliste man jànguma code de la presse muy Daouda Mine ma dégg mu wax ne le journal euh, article 13 ci code de la presse yéen a ko wax de mu ne le jour euh, le journaliste devait pas donner des informations qu'il ne détient pas l'origine ñu ne yéen a ko def ci seen. ne pas l'origine waaw mais. waa déglu rek. ou une confirmation. de ne pas déformer les faits du dëgg. maanaam bul yokk bul wàññi li am wax ko. relater les les faits. Mhm. ou dentre sur la vie privée d'une personne bul dugg ci loo xam ne ne nit moo ko moomal boppam maanaam ay vie privée nit. Mhm. lu mu bon ak lu baax ak loolu vie privée nit lam yéen a ko wax de ou publier un secret de défense secret de défense xam nañ ne bu ñu ne armée mhm. mooy la grande muette. mooy ñoom kenn santu leen ci wax kenn santu leen ci. mais loolu c'est un cas isolé. waaw mais cas isolé boobu nag. tamit isolé la tu traites ça de manière individuelle yow ak nit kooku la mais c'est pas toute la corporation. qui doit euh, être mais lu tax ngeen mais yéen lu tax ñëpp gis ci seen bopp. parce que ñëpp la en en. déedéet déedéet man déedéet man am na loo xam ne boo ne ñëpp a bon te man banuma mais sama yoon nekku ci. léegi gisuma ci sama bopp. parce que banuma léegi.